lamb ko doon indee mën na géew voilà mooy lamb mun na géew. mais ki muy ki muy dajanteel tey. mooy kan. Gackou 2. Gackou 2 mooy kan. mooy xale bi ngeen di laalanteel tey. non loolu daal métti. ndax ngay métti. Gackou kan xamu ko. ndax ngay métti. méttiwul. bu méttiwul di ngeen ci daj coono ngeen ci daj. ana coono yi. ah gisoo. boobu dañoo ñëw tari demaat yoonam. li mu tariwul li defoon bii paas da koy doublé. Pokola mooy lamb. lamb su nit. tëdd na la boo ko yeewee na ko ñibbi sa kër mu ñibbi kër Falaay. ki muy bëreel nag expérience bi. yow ñu di ko bàyyi xel Pokola nekkul màgg bëre juddu bëre la du màgg bëre de juddu bëre la dafa juddu fekk. ngeen ñaari takkusaan muy dimanche bi di ñëw tamit. ñetti takkusaan bari na mais combat bi ñu jëm tamit la cinq. kuy min na ka mais bu fa fekkee moromu moromu kuyam nag. kuy dañoo mënante. ñaari kuy yu daje. kuy dañoo mënante. mais ñaari kuy yu daje. ana ana bi. benn kuy benn kuy la bu mot sëkk ak benn jeune mâle. ak benn jeune mâle kan mooy jeune mâle. ko. non xaw ma ko. ah ma daa bëri doole xale bu at bi wàccee loxo naan ko indil. mais fan ngeen teg combat bi Ama dafa bëri doole kon Modou Lo kon anamu. moo du feeñ si taw. ñàkk du feeñ. taw boo tawtee bu yàlla ji dee taw nga ñàkk xam la la ba xam da ngaa tawtee. Modou Lo ñax la mais Ama taw la. Modou la nga bëgg wax Modou Lo ñax la Ama taw la. na lan la gis. nga ne le 6. wax moom lu mu gis. dinañu wax moom lu muy moom lan la gis na leen ko gis si combat bi. waaw lan la wax moom. VAR am na de. waaye dañoo tapet loolu. te xam naa ne. ñemewuñu ko fi ñu jëm ragaluñu ko boog di mu wees. luñ leen dey ci combat bi. kenn deewuñu dañu ànd yàlla rek doyloo ko xam ki ñu yor mooy kan. bëreeg Modou Lo ak technique bii technique gu Modou Lo roi des arènes bëreeg moom nu mu diisee. mais ku sa bàyyi Falaye Balla loolu doy na xam romb mënut a romb Falaye. mais ci biir géew bi yaa ngi moo fay des mbokk yi kenn du ñëw de. ma ne la xam-xamu bëre mënut a wees Falaye. jërëjëf. Pathé tey looy jëf. damay jëf rek damay jëf rek. damay jëf rek. Ah? damay rek. tey amatul wax. amul wax. amul wax jëf la. waaw jëf tey du bisu wax. waaw ah? xew. kon noonu la demee waatee. lan xew. boobu tamit amul wax sax jëf la rek. la cinq tamit amul ah, lu tax amul ndox ngeen def ci ko. dama ñëw jël si ko par maa ko moom. maa ngi lay maa ngi delloo ziar maa yaa ngi am maa ngi lay baax a baax a baax di nuyu sa caméraman di nuyu waa leeral yëpp di rafetlu liggéey macha allah. papa dañoo jëm ci ay bis yu rëy ay saan yu rëy muy bis yoo xamante ni bis bis yu doy la muy bis yoo xamante ni ah, ah, diggante eh, diggante mag ak rak boo xoolee Siteu la dagee diggante mag ak rakk la waaye tamit bu ñëwee bisu la cinq muy dox si euh, ki nga xam si ni moom mooy moom mooy Modou Lo roi des arènes ak Ama balde doomu Fallaye mais euh, diggante yooyu bis yooyu ak ni mu réyee ak fi réew mi toll ak communication yu ñu dégg ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo mën a wax ay de voix lañ wax sénégalais dégg leen mais tey jii ñenn ñi ñooy wax di yàq est-ce que bis yooyu war nañ ko yàq. Euh, sëñ Fallou wax nga dégg bis yooyu kenn waru ko yàq. mais nag bis yu noonu yàgg na fee am làmb la rek ci làmb lay commencé ci làmb lay jeexee làmb nag moo baaxoo coow président Alioune daan wax ni làmb coow la am mais amul problème xam nga làmb avant la pendant après te boo dee xool lépp coow la rek avant la combat coow la kii mooy daan sama mbër mooy daan nu mu koy daane fee la koy daane loolu la rek même ñi nga xam ne nii dañuy wax nii je crois dañuy wax rek pour jaay combat bi parce que rek sport moo yàgg demee noonu. boo seetaan bi euh, box bi doxoon ci diggante euh, Tyson euh, Rolls ak ki nga xam ne moom mooy moom mooy Kalou avant le combat dama ne woon ñaari boxeurs yi ay kii camerounais bi la kii ay noir américain kii américain bi dama ne est-ce que ñi amuñu règlement de compte gis nga bi mu jeexee jeex na Balla Gaye Yékini amul lu ñu waxantewul mais ba mu jeexee jeex na tàkkusaan gu ne am na fi mais nañ ko yemale ci cadre làmb man daal leen laay wax sécurité bi na doy rek ba nga xam ni waa Ama Baldé ay nitam nañ duggee nii ay nit Modou Lo duggee na le fii mu am séparation ba ñu bañ a jote dara pour lamb ji mën a àgg mais ci lamb lay commencé ci lamb lay jeex parce que ñaari mbër yëpp ay champion lañu te ku ci nekk lamb mooy sa métier kon waroo yàq lamb. Siteu Lac la Guiers lan nga ñu mën a wax ci bis yooyu. grand contre petit la Siteu bi muy tàmbali ci làmb ñëpp ñun ñii ay papaam lañu dañ doon wax naan est am na doole ju ko mën a yóbbu fi champion yi toll moom mu moom mu ni man champion lay doon. tey nekk champion moo ko indi tey fii mu egsi tey Lac de Guiers 2 2006 la dugg ci làmb ñaari defet làmb te mbër daanu ko wëlbit gàng gisaguma ko ci moom dañu naan il est défensif mais espoir espoir de leader de combat noon la da ngay défendre da ngay attaquer boo waree attaquer attaquer boo waree défendre défendre mais combat la boo xam ne daal Siteu bu daanee Lac de Guiers 2 fu mu ko mën a yóbbu Lac de Guiers 2 nag moom. Euh, bu naanee Siteu naam daan na champion mais amul dor fenn fu mu koy yóbbu xanaa kay dina ko ubbil rek ay combat xale yi ñëw wala ay moroomam jël ko lool rek mooy combat bi. jërëjëf Pape mais noonu la ñuy waxtaanee ci làmb ndax bari na ñoo xamante ni li ma yor la ñuy yor mais tubaarkàlla ñoo ngi ciy génne kàddu yoo xam ne day yàq làmb waaye diggante Gackou 2 ak Pokola mbokk yi tey di ngeen gis làmb ju toj ci arène national waaye fay nañ la. noo waajee. waaye waaj samay mbokk rek. waaw. waaw. adversaire bi. caatu piol la ñuy booy boobu. caatu piol. waaw. am nga combat. waaw waaw yàlla baax na. am nga combat yàlla nañu yàlla may ndam rek. Eh. waaw. loolu pare nga ci lépp. waaw pare naa ci côté yëpp ànd ak samay mbokk. yàlla moo ci des yàlla nañu yàlla may ndam. jërëjëf waaw jërëjëf. lii lu mu lay nee na da koy reen. mais xale bee bari mbooloo waa mais mais Augustin ñooy fay seeni cent francs booy amoo leen arrêt booy yaa noonu ale parcelle baa ngi noonu bas loo ngi noonu ale yaa parcelle ba booy ñoo dëkk secteur bële booy ñoo dëkk secteur yële eh, nooy xool booy ñooy ale yaa secteur bële parce que booy ay bas loo dañuy daw <laughs> waa ñu gis naa waaw nice alhamdulilah lan nga yëg ci àll te yokkute nga gis ci voyage waaw sant yàlla parce que ñun moom saa boo génnee rek am na la expérience boo yokk waaw di sant yàlla bu baax di sant waa Jàmbaar production sant waa Parcelles Assainies ba ngeen fa demee gis nañu bëri beeg coow léeg yooyu mais nan la fa demee waaw la dañoo jël seen culture jox leen ñu jox ñu ñu jël seen culture suñ culture jox leen parce moom na la demee kontaan nañ trop gis nañ am nañ satisfaction bu baax a baax a baax a la de guerre Siteu waaw Siteu rek la ñuy ñaanal yàlla may ko ndam yàlla mi ni borom dëkk bi bu aayee ñëpp xam ne moo aayee la de guerre xaar ba jamono neex barki sëñ Bamba mais coowal lamb joo ñu gis ne lamb dafa bari coow ak bu ñu waxee ñu ne Siteu amul fu mu mën a jaar la de guerre non loolu non loolu ñu xamul lamb ñu xamul Siteu rek ñoo koy wax mais ñun dañoo xam Siteu uh-huh. dëkk ak moom xam lu mu mën bu bu jour ba dinañ gis lu garaaw dinañ gis baaxu séeréer dinañ gis cosaan si la tey duma la nag dina ko daan si ci kattanu yàlla. jërëjëf. delloo ziar di leen bëggee. en tant que amateur nga bokk ci làmb ku wax làmb wax amateur tey amateur yi est-ce euh, bii ñu dugg nii amateur ya ngi see gis seen bopp. waaw ñu ngi ziare képp koo xam ne yaa ngi dund làmb rek di ko suivre rawatina amateur association des amateurs de lutte Sénégal bi président Gora jiite man Balla Diop ma doon porte parole bi ñu ngi ziare ñëpp di leen bëggee mais li ñu gisagul moom. wax dëgg yàlla lambi amateur la ñu tegal lambi supporter la ñu tegal lambi aada ak cosaan la ñu tegal dimanche yi fi jàll yëpp xoolal tey ñaari xale yi ñu boole ku ñu mel ni Gàkku 2 ak Pokola Baldé ñu jël Petit Lo boole ko ak Jackson 2 xoolal stade mel ak yeneen combat kon nga ne promoteurs yi ñu ngi béy seen waar amateurs yi ñu ngi ñëw di seetaan si mais sponsors yi nañu ñëw jàppale lamb ji sport yi nañ sponsors yi nañu ñëw jàppale promoteurs bu ñu jàppalee promoteurs yi yéen nan la amateur bi perte moom mooy dagg biyam mooy sant lu rafet mooy taal etoom jóge fu sori jënd essence am ñëw sétance frustration la ci am wala décourage amateur boo gis am na mbër mais mbër yi mun ñoo amateur yi waaw. nga mbër yi mënuñoo tàggale amateur yi soo dégg ma wax loolu man Balla damay damay am mbër góor am mbër mbër ma mënumaa tàggale góor a notamment góor a séq nañ li ñu séq ba pare ndax lamb moo ñu boole sport la sport du tàggale day boole. kon tey jii bu ñu gisee lu mel ni tey jii ci dimanche bi dañuy am tiit dimanche prochaine muy Ama Baldé ak Modou Lo xoolal xale yi ni ñu def fii bu ñu ñëwee def nu muy mel kon nga ne sécurité bi nañ teel a veillé ci après ak avant avant nag moom li tàmbalee EDK ba ba tribunal Guédiawaye képp ko amul billet waroo fa jaar képp ko yoru xaalis ba war a jënd see waroo fa jaar donte billet bi seer na mais xam naa ne làmb ji dina seer mais amateur yaa ngi jooy bi amateur na. mais tawfeex ak tey si. jërëjëf lay nuyu. mais Fallou maa ngi lay fay mon frère waaw. tey ñu gis làmb yeneen xar kanam ñu gis làmb amateur yi ak ni ñu toogee est-ce que lii na yokk làmb parce que gis nañu amateur yi tey jii bu ñu toogee dagg seen i billets mënuñoo seetaan tous mënuñoo seetaan dara tey en tant que président lan nga ñu mën a wax ci loolu. mais Fallou loolu dañuy interpeller la CNG rek parce que yaakaar naa ñoom ñoo ñi ñoom lañ dénk géew bi ñi nga xamante ni tey ñooy superviseurs yi CNG yi. war nañu xool tey jii li nga xamante ni mooy ñi nekk ci suufu géew bi parce que tey làmb ñi bëri ñu nekk ci suuf amuñu accès ci géew bi kon tey le CNG ñoom la ñuy interpellé parce que ñoom lañu denk dénk làmb ji làmb dafa bëri ñi nga xamante ni dañu nekk ci suuf te defuñu fi dara amateur bu daggee biir dafa bëgg a seetaan tous bëgg a seetaan spectacle mais léegi làmb da ngay gis désordre suuf te loolu yëpp ñoom la parce que ñun amateur yi mënuñu dagg biir pare ñëw di wàcc di suuf gis nañ léegi bokalaa tous ñu gis ne que tey journalistes yu bari dañu ñëw taxaw ci kanamu amateurs yi ak ñi nga xamante ni dañu fa taxaw pour seetaan loolu nag CNG ñun moom la ñuy dut baaram parce que li nga xamante ne ñun amateurs li ñu warloo ak promoteur mooy dagg billet sol lu rafet ñëw toog comme ni nga ko gisee billet loge officielle bi 10 000 lañ ko daggee annexe loge 5000 gis ngay salle bi ni mel beneen bi mooy que ni fàllu ñu waxaat encore une fois lamb ji di ñëw lii ñu gis tey jii si géew yi bëgguñu ko gis ndax combat royal lañ jëm nañu jël seen ay précaution ñoom bi parce que ñoom lañ dénk enceinte bi superviseurs yi nañu xool bu baax képp ku amul accès ci mooy dëgg. waaw noo gisee tey ambiance su làmb tey. waaw làmb moom mu yónnee boppam quoi. waaw làmb am na ambiance. mais bu ñu xawoon a réglé tuuti géew bi rek dina baax quoi. c'est parce que mbër yi li ñuy moom CNG war na cee taxaw quoi jël ci ay mesures surtout làmb ji di ñëw. Ama Modou di combat bu mag Sénégal di ko waaj Pikine di ko waaj. te Pikine takku na ba dëgër Parcelles takku ba dëgër lan nga gisee combat boobu. am Ama Modou rek laay ñaan ñaari mbir si jooy bi arbitre soufflé ñu egg ba rek jàmm am ba ñu egg ba foofu ba di ñaanal Ama nag yàlla na ko yàlla may ndam ndax ñun yëmbal lañ dëkk sam-sam tali karo mais Pikine moo ñu bopp waaw bu ñu jëlee yëmbal rek Pikine la ñu dugg Ama yàlla na ko yàlla may ndam jërëjëf. ñu ngi waaj rek di ñaan yàlla may ñu ndam ki ngeen di expérience bi si moom amoo loo leen ci tiit. ki ñuy bëreel du fondé. ki ñuy bëreel du fondé. du fondé loo du fondé. waaw du fondé. Ah, ah, waaw dafa teg. xanaa xam xanaa xamoo sama baay xamoo pël bi. ñun kenn jaaxaluñu. dañuy ñaan yàlla rek ci barke yonent bi ñu dem ci ci jàmm àggale ko jàmm ñu ñaan nag yàlla may ñu dam lan ngay wax supporter. waaw supporter na di wax nag ñu dal. indi jàmm sañse ñëw toog stade parce que lépp nag Sénégal la ñu ñëw sañse toog ambiance amada ñu ñibbi. moo doxee daan. foo ko teg. waaw lu combat moo ko mën. yow day daan nga ne moo doxee. daan daan bu leer ñëw bëre rek. sëll bu ndaw. moo gën a neex a daan daa asma. doomu fan bal. daa asma. ama asma moo doxee dóor fii mu daanu. fii. fii. ci put. bala sek. ragale fete day xañ a wërsëg waaw laa ma ji waroo fi mën boo bëggee dégg-dégg waaw pour muy leer jërëjëf jaajëf Papa Bari Bari maa ngi lay nuyu waaw dama siyaar bu wér barki ci loolu naaj ni mais ana Fallou ana Fallou waaw jàmbaar yaa ngi fii ngi fii mu ngi baax war Serigne Bamba bilaahi nekkaat ni lu gars di xaar waaw gars maa leen di déglu bu baax a baax bilaahi instant ñoom laay déglu nii rek maa ngi sama dugg di entraînement lu métti am na koo xam ne tey jii boo di xelam moo ngi sa xel moo ngi ci yow mais am na ñu mbër yoo xam ne soxla nga la demee mais mais maa ngi rek barke Serigne Bamba lamb moom sama kamam ku ma lamb boole rek naa bëri moom. ah noonu la jërëjëf. billaahi mais borom. waaw baa ngi. xale baa di topp. waaye bii kii la ñëpp ko fa fi am barke Serigne Bamba. Ama bu Malika. Caatu Piyol ba tey Tooba. benn songo lañ def. kii génn saako yi ñu ñëwaat waaye boobu ba léegi xew ndax day songu moom caatu Puyol bi Ama Malika daa bëgg songu hey dugg na ci garde bi caatu Puyol jël na ko luy xew takk na ko caatu Puyol Malika rof na ko daan na lay la daan na daan na daan na daan na ko. jël xale ba daanu na. daanu na lim baaxul Fallou. lim baaxul caatu Puyol. moo ko loxo ba nee na loxo ba. loxo ba. mënut a jug nee na loxo ba. loxo ba. xale baa ngay dem. daan na ko jël bu rëy moom amaam. loxo ba loxo ba. sapeur na ñëw nañu. cey sapeur. taxawal ñu faj la yow. Ama bu Malika daan na ko. Eh, moom mii du taxaw ñu faj ko. no loxo bee sumeeku. bu loxo bi sumeekoo fu mu jaaw jëm. waa daa war taxaw ñu xool ko. doo taxaw ñu xool la fu mu jëm. ñëw di la jël sa wér gi yaram lañ bëgg. waaw mbër lépp jaamu. mbooloo mi sànq bi nga dugg see mbooloo mi lan la. rek mooy bëre ji nii quoi. barke Serigne Touba yàlla moo ma ko dénk rek. keneen ni na déclenché waat léegi. Cameroun wala parcelle mbooloo bi toppaat la. yaa ngi tàggoog say mbokk dugg ci géew bi. tey lan nga ñuy wax. waaw ndam rek ndam rek la ñaan. ndam rek si barke Seydina Mohamed amul leneen ndam rek. maa ngi ñëw si kanam waaw. bisu tey ji waaw nga jël bis bi. di ñaan yàlla di ñaan yàlla mu may ñu ndam. ku ñu xam-xam ni tey waaj nañ te tey bëgg nañ làmb ci ndax ñun nag ñemewuñu gàcce ki ñuy bëreel champion la def na lu ne ci làmb waaye tey dina daj lu metti ñu gis combat bi nga jox ko cër. waaw dama bàyyi dem États-Unis entraîné ñëwaat fii ñu tegaat ma lu metti ànd seeg sama doom nday bii nga xam ni. Mbaye Diop safara dañoo yàgg man ak moom. dund lu ne mu bëgg ma tey li ma takk nii yëpp moom la moo ma ngemb moo ma indi sama xarit la di ko ñaanal yàlla moom am combat yàlla may ko ndam ni may taxawoo kontaan naa trop amal ndam ba pare sama frère la. sa diggante ak Boucher. non naaj man moom ci dëgg ak ngor laay ànd ak nit boo gisee combat bee ñëw ma fi préparé wul école parce que man du ma ànd ak ko parewul mais dafa ñëw écurie ba préparé pare ma gis performance yi nekk ci moom moo tax ma am sañ-sañu indi ko. jël samay bagage jox na nañ dem da ngay bëre da ngay daan incha allah. Jokale ngi noon di génn Jokale ngi génn li muy tëgg lan la ah Augustin kii li muy tëgg lan la. waaw tey ña nga baal ak Ama Baldé ñoom indi ndax Ama Baldé dañoo bokk journée ma daan mu daanu teg la waat 3 ma teg la waat 3 victoire man moom wala ña nga ndax ña dafa yàgg daw sama avance bu paree nag maa nga fiy xaar moo caar période bi yëpp. Augustin jëlal xale yi ñoo ngi ci kaw xoolal mbooloo mi ci kaw cëy Fouta Production li mu def ci arène national day liggéey lu bari di wax tuuti parce que boo nekkee ci boo nee daw boo nee ndaw nga toll ci buntu wut da wut te bañ a wax te bañ a jëw bañ a jaxase def liy dëgg rek xoolal Fouta. xale bi am jom taalibi Serigne Babacar Sy la. As Modou Lo anamu. As roi des arènes mu ngi fi rek. roi des fu mu ne. mu ngi si jàmm bu baax mu ngi man ban ruq la nekkee Fatick. mi ngi këram. këram. waaw Lac Rose. wóor na. waaw boo demee Lac Rose da nga ko fay na ci combat bi fu mu toll. gars yi nee nañoo barki kër démb rek këram lañ añee ñoom ñaar. ñoom kan. sama copain nekk ne démb këram lañ añee. foo leen añee. ñoom këram lañ añee man dama doon jàppale gars yi démb Ousseyn moo doon tëgg ak sama bi moo tax deewuma. mais da nga ne ñee ñee ñan mooy ñan. moo comme ñoom assurance ak yenn gaay sama yenn copain yi waa jàmbaar yi waaw ñoom Pape Gueye ñoom ñëpp démb këram lañ añee. kër Modou Lo lañ añee. waaw kër Modou Lo lañ añee. loolu fu mu nekk si lu mu nekk si lu mu nekk. ngi ci li mu war a nekk. préparé nu mu daanee ama rek bégal supporter am la. mais combat bi diisul ci parcelle. non combat du bës du diis ci parcelle parcelle dañoo mën bës miin bës mu tàmmal leen ko nag xam nu leen di bégalee. te incha allahu rabbi dimanche na leen bégal. coowal làmb. bi nga xamee da ngeen di bë da ngay bëree dëkk boo xamante ni dëkku jàmbur la nga ñëw ba Pikine di fi bëreeg Ama Baldé est-ce wóor na. mais loolu làmb la rek cadre làmb la rek dañu xam na lépp senegal la ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy bëre fii rek mu jeex ndam li du génn Sénégal Ama Baldé mën da wax ba Modou du nekk magam Modou du mën da wax ba Ama du nekk rakam duñu wax ba du nekk ay jullit nekk ay mbok kese espoir moo leen boole ñooy mayante xaalis te bu làmb ji ku nekk di nga seeti sa morom kon képp ku ciy wax lu ñaaw ku ciy def lu ñaaw après yaa ciy des. jërëjëf salaam. yaa ngi si jàmm. ana ma. ah mu ngi ci prestation combat mu ngi fan. mu ngi lolu. mu ngi. lolu lu tax muy lolu. dañuy waajal ak dimanche. dañuy waajal dimanche. dimanche soo ñu mën a wax ci ama nan ngeen di ñëwee. mooy nan. maa ngi leen contre ay contre Tafa ay contre Gouye Gui moo ngi ñëwaatee. roi des arènes ngeen di bëreel Modou Lo lan ngay am looy wax lan ngay wax waa parcelle tey lan ngay wax say moromi ndaw nan lañ war ñëwee ci biir làmb. Modou Lo lan la am ci tur bi kaja. lan. turam kaja. turam la am ci mooy Modou Lo Modou Lo rek. loolu rek tur awloo. tur. mais mais mais mais kooku waroo daal la tudd. Demba amagoo ko. xam déedéet. waaye xam. fii ba trois ans rek. di nga bëri. waaw. Fallou neex moo nekk ci digg géew bi. Ibo moom lañ jàkkaarloo ñang baalo moo ñu woon ginnaaw. ndeysaan Kër Mbaye Fall ñang baalo eh Ibo songu jël na ko takk na ko luy xew. Ibou takk na ko ñambaalo eh mbot na ko sànnante na ñaar fàq na lan mooy xew eh ma ngay suuf moom Ibou tey xale yi fàq na ko. la ilaha illallah ñambaalo Ibou. ñambaalo Ibou mbokk yi. Eh, daanu door mu daanu. door mu daanu. ndax door mu daanu dina jàpp door mu daanu doo am la jóg. oho. moom Ibou. ma ngay door. ñaari xale yi ñemente nañ. laay la xëy na lan lamba ngi nii. xale yi bëre nañ. lii mooy combat. xeex nañ. cey. oho. Mbaale Ibo. diggante ñag Mbaale Ibo. diggante ñag Mbaale Ibo. combat bi métti na. ndeysaan ñag Mbaale Ibo. ñang baalo yi boo ba tey ña nga ca biir ñang baalo ngi dóor ma ngay rokas ñang baalo ngi dóor eh bëtt na ko fàq na ko war na ko nomba Ibo war na ko nomba Ibo war na ko nomba pénalty la ñang baalo def na pénalty de penalty Ibo war na ko nomba lan moo xew penalty Ibo war na ko nomba penalty yàlla na ko luy xew penalty Mbaalo toog na ko tànk penalty hey ay ñang Mbaalo boo génne ci li ma xam ne man ay ñang Mbaalo daan na ko ñang Mbaalo daan na ko ñang Mbaalo daan na Ibo ñang Mbaalo daan na Ibo xale yi taal nañ flam bi waaye ñang Mbaalo waay waaye ñang Mbaalo def na mbir oh oh sama xel ñaaw na mbir de. sama xëy ñëw na. ñun Balla def na mbir de. sama xëy ñëw na. xoolal xale Parcelles bi ni mu def sama xëy ñëw na. nañu ko bàyyi xel. waay ñang Balla waay. sama xëy ñëw na. xale la. Idi Same fii. mbër la. kii. ndaanaan la. kii. bërekat la. oh. oh. oh. oh. lii dañ ko war na ba mu génn ci daan. xale bi. xoolal nu mu def stade bi. oh ndaanaan la. xoolal nu mu def stade bi. Oh. waay ñang Balla waay la Diop xale bi. ñang baala waay xale bii. daanaan la. xale bii xoolal li mu def. bërekat la. xoolal li mu def ci arène nationale. bërekat la xale bii. ay waay daan nañ waa Kër Mbaye Fall. Oh. ña ngay ñibbi. tey daal yàlla na yàlla suturaal te mosuñu ci cat at la ndax tey bis yi ñu am nii tey xale yi liggéey nañ ci liggéey boo xam ne ndam rek moo ñu jig tey géejawaay dafa jël lancé boo xam ne nee naa yàlla yàll nu yàlla lafal cat yàlla na nu lafal cat buuse mooy bëre léegi wala fi def lancement bi. tey nee naa soo amee ful am fayda am jom kenn mënu la ci làmb soo jëlee comédie teg ko fële kenn mënu ko ci làmb. déedéet billaahi wallaahi. parce que moom du comédien. voilà mën na bëre. léegi lan la qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il a qu'est-ce a bëre daan ñu dem ñu bi feede ko ba ndaanaan la li topp ci ginnaaw dafa bari. Gacko 2 nee na bandi la wéyu la sàcc la agresseur la. nga ne la Gacko 2. yi xamuñu ko. wéyu la sàcc la bandi la agresseur la. te ci kanam tuuti la ñu xam loolu. man maa la wax léegi jërëjëf jërëjëf merci bi. état mooy. macha allah ñu ngi nelaw ñu ngi nelaw di dalu. day dox di nelaw. ah mais rek. mais Balla ban rendez-vous yi kañ ngeen jox rendez-vous fii ci stade rek incha allah bientôt mais làmb ji neex na nag vraiment. Uh-huh. Euh, amateurs yi wuyu si nañ supporters yi wuyu si nañ. stade bi wane na boppam ñuy ñaan yàlla ki nga xamante ne moom laa fi indi muy Gackou 2 yàlla may ko ndam Boucher Ketchup yàlla na ko yàlla may ndam mbaru géej euh, géejaay yëpp yàlla na yàlla may ndam euh, vraiment di rafetlu li nga xamante ne mooy fekk nañ daal làmb wuy na wuy na waaw. ndax euh, jërëjëf làmb ji yëngu waaw yëngatu na nag parce que amateur lii lay xaaj ci mbërëm. mbërëm tamit aussi li lay xaar ci supporter meeg amateur ñoo nga fekk làmb fees dell ay ñaari ndaanaan di bëre nga ñëw teewee làmb ji ndax ñun tey lépp lu ñu am rek ginnaaw yàlla gën tubeg seen Tuubaa ak suñuy waajur làmb moo ñu ko may Balla Gaye 2 jaadu na ñu bëggal amateur yi jaadu na amateur yi gis nañu jaadu na supporter Balla Gaye 2 gis yaakaar ne Guédiawaye moo ñëw rek ma waxtu ko yàlla nag mooy xam boole. mais boole yi nga xamante ne moom la quartier yëpp di def Guédiawaye moo ko njëkk a def. mobiliser wu mbër boobu combat sa morom ñëw soutenir la jàppale la ñun loolu lañ xam. mosoo leen gis ay mbëru géej waay yëpp kenn ku nekk ba muy bis ñëpp leen taxaw soit que nga gis ko nga ñàkk koo gis parce que drapeau géej waay la moo tax ñëpp la ñu yéen a jàpp moo maa ngi ñëw ñëpp am koy wax du koy ñaaxaat rek du koy yokk di ko xamal ne nag mooy doomu Fallaye Baldé di doomu Fodé Douce Ba di doomu Double Less ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb dañ koo jël wax jooju cax la ay baayam lépp luñ doon woon ci làmb ji ñun bañ dañ ko def kon maa ngi koy ñaanal ndam yal ko yàlla may ndam ci barke du salaay sal jël bu sa bit la champion ko xam laa wax naa benn jour lima ma foogul woon ci moom laa laa gis ci moom waaye mbër kaamil la yàlla na ko yàlla may ndam. ama boo ko xamul xamoo ko mais man xam naa ko yàlla na ko yàlla may ndam te xam naa li mu am toll nañ ci làmb ji ba ñuy wax lii ak lee waaye ah, naa ne champion la ndaa naan kulli fadli yàlla na ko yàlla may ndam poussé nga xool ko diree waaw xamuñu làmb moo ñu ñor ñu nekk doomi Géejawaay vraiment képp kuy bëri géejawaay rek war naa mën a ñëw wax wax suñu àq mais dama xam ni buuse moo gën a bëgg làmb booy bi te buuse moo gën a saf làmb kon nag làmb dafa teg bakkanam pour daan parce que làmb boobu la toll moo gën a saf làmb moo gën a nag li ko war mooy ñu ñëw dooleel ko rek xam nga am luñ koy moytu am fuñ ko jaarale suñu borom dafa ko ndam loolu moo ñëw di jërëjëf. xam soxna Ayda bu sëñ Saalum. moo ma jëlal moo ma jëlal 15 car. yaay xale yi. barki alxuraan baa jili gars jàppale nan ma mais jàppale bi dafa des man baa jili soxla ma weccit ndax ñu may ñaanal maa ñoom du xaalis ñu may ñaanal maa ñoom du xaalis Cheikh Saliou Lo Cheikh barki alxuraan sama premier combat la ma dala ñaanal ba tey bii nii combat bi bu dee yor naa xaalis yàlla bu ma jariñ dama ko woo mun ma yónneel ma yónnee ay nit lii yëpp moo ma ko jox te jox ma ko dërëm moo tax xam nga lu rafet rek moo am solo baa jili man du ma warkat man yàlla moo ma nattoo mbër rek mais yoruma sax jikkoy mbër barki alxuraan baa jili boo yi manuma leen mais damay dund ak samay nit jàmm mais boo yi may daan yëpp man manuma leen mais lu rafet yu may dund ak boo yi loolu rek la may yàlla di fay dama gis ni lépp looy wax ci ñang mbaalo dañ naan bàyyi leen boo ci yaayam bu yaayam waxee rek lépp lu mu jàppoon da koy bàyyi baa jili su nekk woon sama yaay doo ma tiimale micro bi kon maa ngi si leneen yow baa jili xam nga bu nekkoon sama maire maa ngi si leneen léegi dafa dëkk ñaata la dëkk léegi ba combat bi desee une semaine la ñëw sama gaale barki alxuraan. xoolal caméra bi yow. Oh. bi bi moom laa ko may baa ji li man góor yàlla laa ñëpp laa yéene jàmm. di ñaanal gaay yi. ban nga jëm. baa ji daan. waaw Ibou Samb yow naan la baa ji li ah fu ma ku ma laa ma booleel rek ma géem la. ku ma làmb boole rek ma génn la. mais waaw. barke alxuraan tayu ma ko. tayu ma ko man nekkuma nit ku soxor. nekkuma nit ku iñaan ma nit koo xamante ne nii day def moroomul bàyyi faalam lu soxor. su ma ko tayee yàlla ma safara jël addiya ndax xam ma barke alxuraan tayu ma ko su ma ko tayee yàlla bu ma jariñu di ko jégalu rek di ko wax ni man mën naa ko daan moom mën na ma daan tey yàlla man la àndal waaw Ibou man manuma ko bàyyi faal la arbitre bi wax na ak ñoom li làmb nangu ak lim bañ ndeysaan nee na ko taxawel nii yow Petit Niang arbitre bi soufflé na diggante Petit Niang ak ak ak mooy Petit Lo ñaari petit yi la ñaari petit yi la bii loola bii ñaa bii loolu bii ñaa ndeysaan kii doom la ci Modou Lo kan moo ciy doon tey petit dëgg-dëgg tey laa koy xam. ndeysaan tey petit dina màgg doon garaa kan lay doon tey. oh petit Lo. petit cokkaas na léegi petit taxaw na. petit Lo. ak petit ñaa numéro 2. ak petit ñaa numéro 2. ndeysaan petit Lo day song de Fallou. petit Lo day song est-ce que bu songee lam fay fekk. hey dugg na léegi ci garde bi génnaat moom petit Lo day dem Fallou. day dem. waaye petit ñaa ngi taxaw teg di ko de hey jël na ko. ndeysaan dañuy luy xew. Petit Lo Petit Niang. Petit Lo. Eh, eh, Petit Lo door na ko. génn saako yi arbitre woon na la ci diggé bi. Petit Lo mii. Petit Niang mii. Petit Lo mii. Petit Niang mii. Petit Lo mii. Petit Niang mii. la yàlla xam doy na. ñu xool kan mooy doon grand. xool kuy doon grand arbitre bi. Petit Lo ak Petit Niang. Petit Niang benn avertissement. ndeysaan daa daa génn. Dóor moo ko génnee. sotti délibéré la. arbitre bi sifflé na. arbitre sifflé waat naa diggante Petit Lo ak Petit Niang numéro 2. ndeysaan arbitre bi soof la waat na Petit Lo Petit Niang saaku yi ñu jëm fu ñu jëm si saaku yi waaye saaku yi fekkul kenn faalu ku dem yaa ko fekki looloo am day saan tubb na suuf raxasu moom Petit Niang lu muy raxasu daa bëgg loxo yi gën a xor lu muy raxasu ndax bu jàppee mu bañ a niin hey song na waaye song baaxul daan ko moo ko mën lam bare baaxul moo ko mën moo ko bu doole moo ko mën di nee na mënuma dara ndeysaan nee na yàlla la ay waay daan na xoolal ay waay jarbaatu Modou Lo ba daan na. waxoon naa leen ko. oho. waxoon naa leen ko. ay waay doomu Modou Lo ba daan naa leen ko. Petit Lo daan na Petit fii. mais songu ba Petit Niang songu baaxul. xool ma Petit Lo xool ma Petit Lo. nee na bii na couronne bi salen bi. Eh, eh. salen. ma ngay wax ak waaye roi des salen. ma ngay wax ak waa kër Pokola ña ngay sànni. tey noo indee Pokola. ndam rek yàlla defal ma toogee. mais dégg nga coow li amaayee. barki Rasulullah bal la cinq barki Seydina Mohamed billaay wallaay la cinq nañu xam ne dañuy nga ne la cinq non nañu xam ne dañuy làmb billaay wallaay coow li bari na coow li bariwul Pape Sarr non man dama leen bippe rek wootee wu ko ma dama bippe rek koo bippe ñoom waa parcelle dama leen bippe rek ñoom ñëpp ñu ngi wax mel ni man la ñuy bëreel Ama Baldé Modou Lô la man dama bippe rek mais coow li nga coow liñ dégg yëpp am am Pape Sarr lan la. xoolal damaa ngembu loo ngemb lii lan la. damaa ngemb lii après seen wax looyu fii lay des. fii. lillaahi ñii xamuñu ma sax. Pape Sarr. Pape Sarr Pape Sarr ëpp na 30 ans nañu seen bop coow li dem na ba ñu ngi ciy dégg ay promoteur. non non dam ciy def kot loolu. dama ne la bu làmb ji jeexee di ngeen gis ay photo yu ñu collé ak ay audio yu garaaw. nga de. billaahi wal kitaabi. yaa koy génne. non non ak ñeneen ak ñeneen ñu bëri nañu jëfru yàlla baax na bala cinq. bala cinq. waaw. da nga bëre tey combat bu rëy nga daan. ni nga bëree. a aouzu ah, billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw ma sant yàlla jublu seen bu baax di sant sama ñaari waajur di sant bu baax sama papa Modou Lo di gërëm di ko ñaanal bu baax. xam nga dimanche yàlla suturaal ko yàlla di ko ñaanal baax yàlla taxaw ko suturaal ko defal ko ndam ay eh, di sant waa parcelle bu 26 waa Tëngéej waa Thiolène ay eh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp Abdou Ndiaye aw ma fayam ak Aliou Dramé mi aw ma fayam xam nga ak Sadou Ba aw ma fayam ma ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci ginnaaw Abdou Abdou bu ñoo yor série ab sax kooku aw ma fayam yàlla laa koy bàyyil ay ñoom Pape eh. ay ñoom ay Ousmane waaw ñëwoon ci combat bi. ñëwoon ci mais liñ ma bëreloo rek laa bëreel. lan lañ la bëreloo. waaw dañ mën a teeyal xam nga xale nga entraîné na nga def nga li nga war a def lépp barki démb sama papa Modou Lo dafa ma awoo mu ñëw mu ne ma ñu naan boobu li lay bëri li lay bëri mu ne ma bu la kenn moytuloo bul moytu dara si moom li nga def lépp def nga ko boo demee yow li mën def ko nga daan ko mais bul ko moytu si dara xëy te exactement noonu laa ko defee xëy di baax ñoom i baax ak mëlay damay seetlu ci biir bëre bi da ngay jiital tànk ndijoor mais chaque fois yaa ngi koy joxoñ droite pour bëgg mu répondre nga daw jël ah sant yàlla bu baax rek xam nga nee naa li ñu ma bëri loo rek laa bëre déggoo ma a naa la fois maa ñëw di def lu ma ne mais suma ma def li ñu ma def loo Eh, mais yàlla baax na yàlla bëri na sutura di sant yàlla la may la su ma la déggee kon sa la li gars yi doon wax ne booy bi daa mën a bëri parce que. non ndax noonu bëri kat Modou Lo mooy tuur loolu la loolu. li ma doon moytuloo lépp entraînement la ma ko moytulooyee entraînement su ma toogee a yëkkati lu diis bu gars yi naree wàññi mu ne leen bàyyi leen ko ma sonnee su ma tëddee mu ne ma te foofu la ma boo ñëwee fii da lay yërëm mais ku la ray fële boo fi fii mu waaw mu nee la. Fouta lii lan la. sant yàlla rek di julli si yonent bi di ñaanal samay ñaari wayjur fu ñu tëdd yàlla na leen gënal fu ñu jógee samay mag dañ maa ñaanal ma am ñaani wayjur bu baax am na loo xam ne sax bëgguma ko wax tey dama mel ni mbër buy bëree ba may génn tey sama kër barke alxuraan. Fouta yar gi ngay wane lan la ci làmb. waaw dañ maa yar si wayjur yi la mag yi ñëw motali loolu war yàlla loolu kese la. mais sant yàlla rek bu ma ñëwaatee nga gisaat leneen chaque événement damay innové heure bu ma ñëwee rek li ngay gis ak lay am du doon benn lu tax loolu liggéey te du ci boole wax te yéen a ñëpp jàmm noonu laay doxee sama àdduna man. fooy loxodee xale yi di leen boole fii ci arène nationale. waaw stade seetaan gis leen génnee xaalis fay boolewu ma ak daraay wax. te yow doo yoreel benn mbër xaalis. yoreel benn mbër du ma dugg sama yoon newul mbër bu ma dégg n yaa ngi si combat mbala ñu ngi waxaale say combat du ma ci dugg du yàq benn làmb. ñëpp laa yéen a jàmm li ma war a def ma def ko ci loolu rek laay dox moo tax suñu borom di ma may lii li nga def arène nationale gis nga ko bàyyi ba ma ñëwaat maa ngi waaj lu rëy te bu ma ñëwee bii baa dama koy tëj di nga de bu ma ñëwee bii dama koy tëj di jégalu amateur yëpp ndax tey li fi am sama xol mayu ma tey ñii dagg seen i billet ñëw amuñu fu ñu toog ma leen ciy jégalu bu baax bu mu leen ko mënoon delloo dama leen koy delloo barke alxuraan ndax bëgguma lekk ak tey di leen jégalu ñoom ñëpp ci lii ndax sama xol tey dafa fees ñi ma ñëwal ñi ma ñaanal ñi ma jàppale maa ngi gërëm sama mbokku Haalpulaar yëpp kala biyo mbiimi mbiimaami rek mbara salmin ma mbara ndaara jamma mi yiw diwa wujudi di nuyu Ceerno Abdourahmane Bari bogal bu baax moo ma ñaanal jërëjëf lu xew jàmm ak salaam bis waaw boko day boko la incha allah nga ne day def loolu day day def loolu incha loo def lan boko la day def loolu incha allah lu muy def li mu war a li mu doon def li ngeen ko xamee loolu lay defaat incha allah ah. day metti rek ñoom ñaar mais bokoy daan incha diggante Bousse lamb ji ndax lu jeexee par avertissement ndeysaan nit ñi reporter sax dañoo dem ba sonn jeex na bëre woo leen xeexoo leen machine niil aussi seen xale yi bëre wuñ xeexuñu nekk fi di léewtoo damantey baaraam bayante fàllu songoo amul xeex amul suspendre dañ leen a suspendre ñoom ñaar nii lu ñu de dañ leen a suspendre waaye naa ñoo ngi nii rek yow yaa indi jokkeel waaw comme d'habitude comme d'habitude waaw comme d'habitude ni mu bëree li ñu la waaw mais lamb la rek lamb la bon ñoom ñaar ñëpp décevoir nañ amateurs yi bon mais yàlla baax na quoi waaw lamb moo tax ma ne la la rek. waaw lamb la rek. mais Boucher moo topp di laaj Jokal. ah moo topp Jokal quatre défaites la tegle donc c'était normal mu ñëw taxaw quoi. mu ñëw tamit du ñëw di wanteer boppam mais moo topp di ko laaj moom deful dara xam nga li fa am yëpp Jokal la ko def nañu waxante dëgg rek mais nag quatre défaites ku ko tegle doo jël ay. xaadim door fayu la. mais door fayu moom moo doon door ah. mais Boucher door na. Boucher moom hippopotame la rek wax rek la fi nekk. waaw lamiñ yooyu wax rek la fi nekk. xaadim xaadim buusa ngay waxal de. lamb jee wax rek la fi nekk barki sëñ Tuubaa Mbàkke lamb wax rek la fi nekke mais kuy ku ne xam na ne tey Jokal dafa ñëw pour bëre mais yàlla nit ki man su ma demee ba laaj bëri damay def li war ci moom. dañu waxante dëgg loolu moo fi nekk. xam nga mais affaire comédien yi muy def kii waruñu ko jox bàyyi sax muy bëre. jërëjëf ci loo ne sant yàlla bu wér alhamdulilah. foo toll si suuf waa ñu ngi waaj incha allah le 10 décembre ak Mbéwane production diggante Daabu Texas ak Sandrep ak combat yu neex yoo xam ne ñoo ca war a am mais avant loolu ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Leral TV yëpp gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def yow ak Lat Diop ak euh, personnel bi ngeen àndal yëpp wax dëgg yàlla saa su ñu ngi leen di suivre di gis liggéey bi am na solo loolu dafay wane ne lam soo ci nekkee da nga war a yokk mais waroo wàññi di félicité Fouta mi nga xam ne moo organisé tey diggante Gàkku 2 ak laa Balde gis nga lamb ji ni mu mel mooy wan ne sénégalais lamb la ñu bëgg lamb la ñu xam lamb rek la ñuy topp saa su ne boo wootee dafay mel ni gis nga demb lu fi amoon laa même chose gis nga tey li fi amaat te noonu lay continuer bul fàtte ne dimanche mu ngi ñëw waaye bu ñu ci jógee ñëw le 18 sama xarit Jibi Ndiaye mu war a organiser combat bu mag bu ànd ak yàlla ñu ngi lay xaar nag ci liggéey bi fàllu ndax yow suñu xarit nga. day ni ñu ngi ñëw incha allah ñu ngi maa ngi lay nuyu. leeral maa ngi lay fay. ci loone sant yàlla. foo tollu si journée bi. ah ñu ngi préparé le 18 novembre incha allah Wito ak Boy Diobass. wito euh, ak Boy Jobaas. Vito Vito men ak Boy Jobaas. Euh, ñu ngi ci toftal combat yoo xam ne ni combat day waar la incha allah bu gënee jege rek dina leen woo yéen waa Leral TV yi ñu waxtaan ci parce que yéen da ngeen di leeral lam maa ñu ngi lay fay. seen diggante Fouta mu jël grand combat bu toll nii tuddee waaw xam nga fuuta doomu ndeyu président Mame Boye Diao la Fouta acteur de développement la euh, par coïncidence ñu ñëw fekk ñu ñëw Mame Boye Diao yebal ñu ñu ñëw ñu fekk fii si biir euh, si biir donc euh, arène bi la ñu xam ni fuuta ñun si suñu bopp ñoo bokk benn deret kon xam nga yàlla du def lu. lu ñaaw lu rafet rek lay def. ana président Mame Boye Diao. waaw président Mame Boye Diao tey dafa doon préparer pour ñëw mu am benn xat-xat bu ndaw bu ko téye loolu moom moo tax président mambooy Boye Diao teew fi mais vraiment xolam a xalaatam. ak xelam ak léppam mu ngi fii si biir arène arène arène bi. ku ne xam ne ne diggante Ama Baldé Modou Lo fii lay xewee sa 5 ci kàttanu yàlla sécurité bi la Sénégal di laajte sécurité bi la Sénégal di coow fan ngeen ci toll en tant que commandant. lamb ji bu doon suba pare nañ ci côté ban. côté sécurité bi ngay wax bu doon suba la lamb ji pare nañ bu leen neexoon sax bu lamb ji jeexee ñu génne nit ñi nit ñi ñëwoon ñu commencé lamb ji pare nañ. sécurité bi fan lay commencé. sécurité bi ndakaaru yëpp la ñuy wër ndakaaru yëpp banlieue bi ba Diamniadio la ñuy tàmbalee ba Gorée. Diamniadio ba gore lépp sécurité dama ne xam nga yow les forces de défense ak et de sécurité dañu xarañ te lamb ji du lamb caaxal làmb la boo xam les gens dañ ko jël à bras le corps te du fo. d'ailleurs mardi lañuy def suñ première réunion de sécurité pour war la jël nañ làmb ji vraiment ak fulla war ngeen débloqué nombre ñaata personne ci police ak gendarmerie. non xam nga man faral du faral di wax nombre dama naan la rek dinañ indil lu doy te yéen da ngeen defee ni ñu sol soltani rek ñooy policier déedéet wala gendarme ñii sol civil ñooy ëpp. côté EDK ba Pikine EDK ba côté boobu war na am sécurité bu doy Sénégal sax laay wax banlieue bi parcelle Pikine war na am sécurité bu doy parce que am na ñoo xam si ni seen i dañuy génn n'importe quelle heure bu ne ñoo est-ce que dinañ am sécurité bu doy. nee naa la à partir de samedi lañ koy tàmbali. ku génn ñu jàpp. xam nga non waxuma ku génn jàpp la de du du ñu xaar dimanche nga à partir de samedi ku bëgg jëm dem doxi say soxla normal mën ngaa def mais ku def naka si dul noonu ah. yéen waa leeral yéenay leeral lépp mais ku ci génn ba def loo war ta def bu boobaa xam nga doo di nga kii waxoon na ma ko. commandant Thioune jërëjëf. mais mais dama ci bëgg a doon leen journaliste yi sa gars wax leen dimanche nañu ko rafetal nañ ko jekkal ba ñëpp mën a gis parce que ay billets cent mille deux cent mille vraiment gars yi mënuñu ko sol ba pare duñu gis di ko fay ba pare duñ gis waxtaan la ak seen gars ngeen xool nu ngeen di mën a organiser woo. tey noo leen indee Pokola. waaw comme comme niñ ko doon indee rek. waaw ndax moom day sunu rak doon sunu xarit ah amul fenn sens interdit boo gisee mbooloo mu koy topp mooy Pokola ku ne lay fréquenté xeebul kenn moo tax bu amee lamb rek dañuy bàyyi yitte yëpp ñëw toog parce que man lamb moom ku dul Ama Baldé mënu ma indi stade waaye nag bu Pokola di bëre wala Jacob di bëre damay bàyyi sama yitte yëpp ñëw. mais la 5 fan ngeen foore non dañuy dañuy fooree fantaan fooree ren ndax sax lamb dañoo bëri ay ruq ñun. moo dinaa la wax la ndax sax làmb Ama bale sabar bu ne ak fu muy ndax loolu ñun ku ne xam ne waa Saalum lañ te Saalum lañ jugee yàlla dogal nag ñu ñëw Pikine. yéen a moom sabar. loolu loolu loolu moom waxatuñ ko ndax sabar moom. Saalum sek Saalum sek a ah, mais ku dégg Papa Seck ndaga kay dégg Saalum sek dégg Baye Talla da nga xam ne nag sabar taw la la jugee. foo toll si sa bis. waaw le vingt sargal Alsane Mbaye. waaw le vingt cinq décembre. di yëgal ñëpp nag. sargal alaaji Alsane Mbaye fii ci pikin beneen bi topp nag day am défilé de mode. tànnibéer bu am défilé de mode nag musul am. c'est la première fois man rek maa koy def. maa ngi ñëw télé ba ñu waxtaan. waaw boo ko defee mu indi sabar yi ñamal la tuuti. barki Sëriñ Tuubaa. Popokola ma nga ca kaw kaw ba taxaw. di sotte ko benn laget. cey lamb lu ne la waaye ma ngay sotte ko niil. mais lu ma jaaxal moom bu sotee ko day nin bat waaye Gackou 2 ma nga wow kongu mënuñu ko. na xam la lamb bàyyi xel xale yi. waaye ndeysaan xoolal ñaari xale yi. ndeysaan Fallou. arbitre lamb bu tollee fii. arbitre buy génn seen diggante. lamb ji di jeex. ndeysaan arbitre suuf la na. dégg nga noonu. oh oh ki nga xam ne mooy Gackou 2 ndeysaan Leewtoo ba dig na le 29 octobre fii ci arène nationale éé eh, eh. Fouta production mooñ fi woo doomu Grand Yoff bi doomu Grand Médine bi su tëggee lamb lamb neex oh, oh Pokola Baldé day dem de day oh, day dem moom Pokola door day dem de waaye Fallou teel a 13 janvier Baba Jaxle bu Afia Fallou Pokola loolu lu garaaw la lu neex lool lu neex te yaram aar. Pokola day de. day dem door Pokola day door na Pokola ngi kabaru cogo mais. ak ñi eh, eh, ku wóorul. ak ñi may door Pokola ngay dem. Eh, am na protestant bu naaw de. dañuy xeex. am na protestant bu naaw. am na lu wadd. téere la. ak Gackou 2. eh. Sikaat door mu daan noo am. dina am kay. door waay waay Pokola Baldé ay waay ndax door mu daal du am. door door Pokola. door takku door. door kaawana eh la ilaha illallah eh, eh. juutal Mor Lo Balla Gaye juutal la ilaha illallah daan na ko juutal jël na jaana juutal juutal juutal mu daw jàpp ko juutal laa mu jeex juutal xale juutal booy juutal xale juutal booy bi juutal. waaye. Pokola. ay Bakude. Pokola. ay Pokola. Pokola. na. lan am. ndax arbitre du leen woo. lu wax. Fallou lu am. am na lu xew de. am na lu xew. am na lu xew de. am na lu xew. am na lu xew am na lu xew de. protège ma. ndax vaar du am. protège ma. ndax vaar bi lan lay jëriñ. Pokola daan na lan moo. ah Pokola dafa daan na Gackou de. Gackou de def na quatre appuis Pokola da koo daan ba pare. lu sëñ Bamba daan na lu Pokola kese. daan na ñëw Pokola lay toobu. Pokola lay toobu. maa ngi tëmb la. wuy ma Pikine dimanche dimanche Pokola dooma ñu man dama ne Pokola bu ayee xoolal dañoo ñëw man ah, Ama Baldé ak Pokola ku ñuy bëreel moom laay faral. Mame Mbacké combat bii nii jeex na ba lii politique la politique ça va yéen ñii caméra gis ngeen. Pikine moo mën a bëre loo. laa mën xoola lii lancement des na la cinq la cinq Modou Lo dañ koy noq ko nee na bilaay walaay buñ daanul Modou Lo ma bàyyi seetaan dañ may déglu ma ak yow cin bu xeeñee neex adduna ñëpp xam ko Modou Lo day nga waaye jëli dafa am ba lan mooy baax na ci yow la. yàlla mais maa ngi lay maa lay. sorcier de Pokola. waaw ni ngay indee booy bi nan la. daa pare. lamb dañ koy sonn. dañ koy jël ñëpp ne. dàqu mën. mais lobin bi gars ko umbale. jël avance Pokola yomb na de. mais attendre 19 heures Pokola jàpp 20 heures moo jafe parce que Sëñ Fallou Mbacké Pokola nañ ko ñaanal rek nañ ko ñaanal gudd fan ak wér rek ak wér gi yaram parce que Sëñ Fallou barke la 5 ñun door Modou Lo mu daanu. ngay lan ah ngay lan la 5 ñu door Modou Lo daanu. le 5. ah non le 5 lay comprendre. dimanche nga gis garaaw. bu dimanche gis garaaw garaaw dimanche ba Pikine. gisagoo dara incha allah yàlla suñu defalee jàmm. fi ngeen di fanaan samedi fi ngeen di fanaan ñu wax ngeen fanaan. di xa di fan xaral waa Parcelles dalal leen. laamu la. déggoo li ma la xanaa. dimanche moo si des. dimanche nag Sénégal di dar seen gémmiñ oh, barke Serigne Touba Mbacké dimanche la la Sénégal di dar seen gémmiñ bu bees day am par force par force par force ma la wax par force inshallah dañuy am dañuy tey la judd tey ma la wax tey la judd ñoom am daa lu ñu doon essayé waaw waa parcelles yi buñ dee ay dëmm ñun ay nooxóor lañ est-ce que dina yomb fii ci suuf. fan la nekk nii. a ngi la bi. Pikine la barke sëñ Fall xam lu ñu ñaanal. suufu maam la de. waaye Modou Lo ne du ngeen ko ëppalee dara. yooyu yëpp am solo moom nan la nga ñëw rek bëri si. barke sëñ Fall lan la li waa TTT bi génne ton bi lan lañ génne ama da jëli loolooy solo gaa amul leneen. TTT TTT Touba Talla ton. réew mi jëm kanam alu café rek cër. lamb ji boo bëggee dee loo fi wax di ko waxaat de. ba leeral TV déggoo lamb ji laa bu bëggee dégg dëgg laa ku xef du gis jël bi. ama yàlla da ko suturaal suñu borom la cinq incha allah rabbi fii soo gaa bi leen la ama da koy jëli loolu la amul amul leneen. moo ko am nee na. jeex tak waaye Modou Lo nee na moo ko yeewi nañu yeewi nañu moo ama wax na benn wax boo xam ne mooy signature bi ki ci nekkee sa kër ki nekk këram wax na benn wax boo xam ne gars yi bàyyiwuñu ci xel. lu mu wax. lamb ji amul revanche loolu wax la. xam nga la ñuy bëri. jeex na. revanche bee nekk di. bëri woon nañ ñoom ñaar mu am nu mu demee. non lamb ji la wax boobu jàll na làmb ji la wax làmb ji amul revanche yàlla na ko yàlla may ndam ci baat sëñ Fallou. organisation bi ngeen def fan yi indi vaar. yokk yokkute làmb. waaw dañuy sant yàlla xam nga boo jiitee ay nit ñu yàgg la yox ay doléance ni la buñ sañoon vaar ñu indi ko si làmb ñu wax la ko benn at wax la ko ñaari at wax la ko ñetti at laaj na nag nga commencé taxaw poser des jalons ni ah liñ lay wax nii nañ jéem a xool faisabilité bi. moo tax ngeen gis ñu jéem a def ñu tuddee une semaine d'essai ñu ñëw essayer tey encore ñu ñëwaat continuer essai boobu parce que liñ naan l'œuvre humaine bala moo jag bala moo baax foog nga dem demaat demaat demaat donc looloo war ba tey waxuma ni ñu ngi vaar complètement mais ñu ngi toujours si phase expérimentale bi bu ñu demee nag ba lépp sotti ba mu mat sëkk incha allah dinañ ko teg di taal écran géant bi nga xam ne lépp lu ñu décider si vaar dañ koy projeté ci écran bi ñëpp mën a gis incha allah. mais président Meissa bu ñu duggee ci combat bi am la cinq nga xam ne coow li bari na ñoo ngi naan làmb ji ci biir géew bi lay yàqoo est-ce que matuwaay bi ci biir géew bi jël ngeen. waaw xam nga matuwaay nag aussi ñëpp a koy jëlandoo ensemble CNG wax charte yi ñuy tëralee làmb yooyu ñoom ñëpp xam nañ ko mu fàttali leen ko yee leen yedd leen ñu woote également ay waxtaan. ku si nekk ñu fàttali la sa cër li nga moom ak li nga moomul la nga war a def ak la nga warul def li des nag mooy chaque acteur na na na toog fa mu war a toog chaque acteur la mu war a liggéey na ko liggéey bu ko ku nekk defee làmb tey bii bu ñëpp defee noonu làmb dina yegg mais nag mënuma comprendre ñu ñëw ni la da ngaa war a ñëw bëri si nga ñëw animer beneen intention kooku tamit vraiment xel nangu ko bu dee loolooy tax làmb do am effectivement làmb do am mais bu nekk ku nekk ku nekk ku si nekk la nga sasoo ak CNG sasoo ko même ak sa bopp sasoo ko ak le promoteur jéem nga ko respecté incha allah làmb dina bu soobee yàlla. mais président ñu gis stade bi nu mu mel. bu mbër daanee ak ku daanu saisi ñu koy sànni mais jotul saisi ngeen dindi ko ndax nit ñu noppalu. waaw bu weesoo jot mu dindi ko dafa dafa jot nag nit ñi gën a yeddaat seen bopp parce que mënuma comprendre ñu daan la nga sànni xeex ñu sànni chaise nga daan sànni chaise donc man loolu vraiment mënuma ko nangu. mënuma ko accepter bon li ngay wax nag solution euh, beneen alternative la mais man pour man nañ raisonné premier alternative bi ba pare mooy nañ fàttali suñ bopp nañ gën a yeddaat suñ bopp nañ gën a euh, teguwaat si raay bi raay bi mooy lan chaise dañ see war a toog mais chaise yi waru doon pour sànni maintenant nag bu ñu demee ba sës ba nga xam ni ñii jàpp nañ leen. ñii euh, def nañ leen lu dul noonu solution beneen bi nag mooy malheureusement li nga xam ne bijou la waroon doon dinañ ko teggi finalement ñu toog si ay banc mais est-ce que réellement monde de la lutte mérité na toog si ay banc loolu tamit euh, ñun ñoo war xoolaat suñu bopp. jërëjëf baax a baax ànd bi ngeen ànd ak leeral TV leeral point net am nañ mbégte am nañu contentement ànd bi ngeen ànd ak ñun tey arène nationale Fouta production de xale boo xam ne jàmbaar la ci làmb de xale boo xam ne liggéeyam ci làmb gis ngeen ko mbokk yi. day jëf lu bari wax tuuti mbokk yi Pokola Balde bàyyi leen ko xel sampion la Pokola Balde champion la tey Pokola waneeti na preuve la jóg. Fallou comme ni ko waxee di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre Leral TV Leral point net di nuyu àdduna comme ni nga ko waxee Fouta production moo ñu fi woon tey diggante Pokola Balde la ak ki nga xam ne mooy Gackou 2 mu nekk ñu bëre bëre bu neex Fallou xeex nañ bëre nañ boo xoolee Pokola da ko jox kanam gi gàkku dóor dóor ko ba ñëpp yaakaar ni Pokola kaawoon na mu jàpp ko fàq ko wër ko nomba bi nga ko wëree nomba ñëpp yaakaar nañu làmb mu jeex na Pokola tourné résulté daan ko mu nekk combat bu neex Pokola Baldé na ko làmb bàyyi xel mu ngi ni suñ ginnaaw xale la bu jugee Pikine topp ko te mbër la ndaanaan la noonu la demee Fall. jërëjëf jërëjëf Fall jërëjëf la Diop jërëjëf mbokk yi ñu doon seetaan ci Leral TV Leral point net mbokk yi dinañ jox dig daje beneen yoon ak Leral ak Augustin la àndal waaye Pokola mii Pokola Pokola mii dof la xale bi dof la Talvan ak Pokola lamb la. Talvan Talvan Talvan gémeur bi. eh yow yow yow taxawel ne Talvan bu ñëwee ñu géem ko. Talvan bu ñëwee ñu géem ko. gémeur la de mbokk yi dinañ jox daje benn yoon mais Ama la Ama Baldé la 5 fii que le maire